Abdoulaye Bopp yegg si nañu ci nag ni ko hmm. bàkk bi waxee rek ñu tàmbalee ko nag ak Walfadjri euh, quotidien lan la xëy fësal ci xëtam wu njëkk. ma ngoog euh, mu ngi ñuy dégtal njiitu réew mi Basirou Diomaye Faye taxaw seetlu la def ci moom gannaaw buñ ko falee ba léegi euh, tukki yi takku nañu lool te amagul lenn lu mu juragul ci réew mi maanaam dugalagul lenn ci réewum Sénégal te saay su ne ma ngay jël avion di tukki ci lu yàggatul sax dina wutali yeneen rew fu demee ni Burkina Faso feneen ak feneen Walf quotidien moo ñu ko yëggee mu ngi ñuy tamit. réforme coppite ya ñu nar a indi ci wàllub yoon jur na waxtaan gu yaatu ca jam ñaajo njiitu réew mi Basirou Diomaye fay mel na ni ko àndut tak république des juges ne warta fee mun a am bokk na ci tamit euh, Ousmane Sonko ma jotut a teg tànkam fa ñuy waxtaanee yoonal yu bees ya ñuy séntu euh, ci mbirum yoon loole nag moo jaaxal ñu bari ndax euh, Ousmane Sonko premier ministre jotu fa teg tànkam. Le Soleil yéen ñuy dégtu dégtal njiitu réew mi la ñu war a moytu mooy yëf yi warta doon fayantoo topp ñenn ñi bàyyi nañ ñenn ñi la ñu bëgg mooy ñu waxtaane ko pencoo ko ngir xool ban yoon la Sénégal war a tegu euh, ba kenn ku ne mun ca gis sa bopp ti ni yoon di doxee ci euh, mim réew ndaje moomee ubbi nañ ko démb dañ ko wel ba juróom-ñetti fan la cay tukkee incha allah dañ ko gindi askan wi. Las e yéenekaay lan la fasal ci xëtawu e njëkk commission yaa ngoog jot nañ leen a samp euh, démb talaata ji ñu jëm la ñu fas yéene nag jukki la ñu jot a dëxëñ ci seen ak seen waaye itamit eh, ndaje eh, dëgtal ko njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye mu ubbi ndaje ma démb jàpp ne itamit eh, ndaje demb gi ubbi nañ ko nam waaye nag du ubbi goo xamante ne dañ cee bëgg a topp ñenn ñi gàllankoor yi leen ña ca des itamit ñu am fu leen féetale ña ci ñëpp bokk yem waxtaan waxtaanandoo mbirum yoon ndax doon na lu Sénégal soxal ci jamono ji moom la yittewoo. Euh, turbine yéen kay. Euh, turbine mu ngi ñuy dëgtal yooyu la assises yi ñu jagleel yoon ak euh, bokk na ci justice moom ci woy politiciens yi ñoo ko daanaka ngoy ci bugguñu benn yoon mu tàbbi ci république des juges bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay Cheikh Bara Ndiaye ak Bamba Kassé xawoon nañ fa réero demb yéen a bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk mu ngi ñu dégtali tamit ku jéeg politique bi ci jamono ji ndax waajal nañu élection législative yi ndax njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay li mu bëgg mooy ñu tas tasar assemblée nationale gën gaa yàgg fileek décembre ñu amal élection législative ci wàllub euh, gerte gi ca Saloum euh, Bachir Ba njiital ar suñu moomeel ma ngay dànkaafu Habib Thiam mi mu ne nguur gi la mu war a def mooy fexe ba engrais geek jiw gi mun a yegg ci teel ci béykat yi lu ko moy mbéy mi mun naa na sax ci atum re ji Abdoulaye ñaar ñooñu ci kanamu président lañ doon defente seen yooyu. man ko ci ndajeb démb xam naa kii mu waxee na le am ko waxee na neen ba yëf yi jur juunoo ci seen biir. warta mun a jur joonoo ndax kilifa moo toog njiit ma dañoo war a waxante rek. Hmm. maanaam ci idée. Eh, te bi ñu indi coow lu rëy ndax nag kilifa bu toogee dañ koy mhm. wormaal. te yoon lañ fa doon waxtaanee foofu nañu jalgati yoon kon dañoo waroon tegu ci yoon. <laughs> waaw kilifa moom du tuuti. kilifa kilifa la rek. am na ci solo ay ayca nañu xoolaat toogi nii le mandat yéene kaay. réforme ya ñuy xaar ci wàllub yoon nañu ko waxtaane xootal waxtaan ja loolee càkute càkkuteefu njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay eh, ci googulem ndaje Mimi Touré eh, fàttali na tamit yoon nekku fi pour di fayanto ay kàddoom ci biir yéene mandat. le quotidien yi ne kaay. le quotidien ne ndorteel dialogue national gàngoog jëm ci yeesal coppite ñu war a indi ci wàllub yoon bokk na ci lañ cay xaar njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ne li mënta am mooy euh, lépp daañ ko mun a matal waxtaane ko ba askan wi kenn ku nekk dootoo xarabati yooyu yoon kenn ku nekk gis si euh, sa wàll ci euh, yoon na muy doxe ci réewum Sénégal waruñoo doon warul doon yoon goo xam day jéng loolee nañ ko moytu ci bile ndaje. réew mi ci réew mi mi mu ngi ñuy dégtal réforme euh, yi ñu waajal jëm ci wàllub yoon waxtaane ko njiitu réew mi euh, Bassirou Diomaye Faye xamle ne ci jamono ji euh, lépp képp ku ci mën a joxe sa xalaat bu ci yox yoxi benn yoon ndax ubbil nañ ko ñëpp ngir ñëpp mun a joxe seen xalaat ci lu mun a ñongal réewum Sénégal. 24 heures chrono. ma ngoog dikkaat na ci njiitu réew mi waaw man Ablaye te yem ci 24 heures rek. yow yaa ngi woon ca film ba bi <laughs> yoon 24 la mu ngi ñuy dégtal ndorteel googe assise yu ñu jagleel wàllub yoon ca Diamniadio njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye xamle ne eh, lu ah, lu xewoon ci atum 2018 baax na nam waaye nag bi la yoon bëgg nañu ñu gën ko yaatal ba ñëpp mun cee gis seen bopp eh, na doon yoon goo xamante ne daanaka du jeng eh, du ñu faral kii subli kii mbootam dal ci kale loolee dañ ko war a moytu bokk na ci tamit Aminata Touré fàttali ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye lu mu jot a dund amul yéene teg ko doomi aadama mu ngi ci yéene kaabi di 24 heures Yoor Yoor. yor yor démb la yor yoor euh, yor yoru démb mu ngi ko fekk ca jam ñaajo mu ngi ñu dégtal ubbite googu lépp ndaje ñu waxtaanee mbirum yoon njiitu réew mi euh, Bassirou Diomaye fay wax na fa metre Pape seen jàpp ne euh, na ñu fexe ba itamit yaakaar gu wër mun a jógee ci googu lépp assise Mamadou Thior jàpp ne yoon bu doxee rek mu dox ci ñëpp bokk na ci Seydi sama ne projet jëm ci itamit état de droit foog ñu càmbaraat ko Maurice Soudieck Dione wax na ca ñu bëri ci ay kàngam ya fa ne woon joxe nañ ca seen xalaat source a ma ngoog euh, ba jaxate lay wuyoo activiste mi ñu teg loxo yàggul gannaaw kàddu yamut yëkkati euh, jagleel ko son ko premier ministre ndekete yo jotoon na fee yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Babacar Mboup euh, bu sàmm jikko yi kooke nag moo ko clamé ci yoon ba ñu jëlee ko ca sedut gamu ne woon yóbbu ko ca digg fa fa la woon moom ba jaxate lañ ko cay laaj ñag ca kàddu yamu teg ki nga xamante ne Mboup daanaka lu bari jotu ko ca leeral def faf noppi jotuta tontu ci laaju enquêteur ya euh, critique yéen kay euh, chef de guerre officier opérationnel euh, jem ci tamit au commandant bu armée bi bokk na ci ki nga xamante mooy général Kandé mi ne dañ ko exiler exilé ca Inde fa ko yóbbu bees loolu nag tàmbale naa jur ñegg-ñeggu xol mu ngi ci yéen kay bi di critique nañ ko yóbbee mu doon ambassadeur bu Sénégal wala ba boog dem ca ambassade bu Sénégal ba ne ca Inde général Kandé mom yëf yi ko jural ci jamono jamono ji tax na google décret dina ko attaqué ndax dañ ko fal mu doon attaché militaire ca New Delhi yéen a euh, di le quotidien moo ñu ko yëggee. bés bi le jour. mbirum koppar gi nga xamante ne tudd nañ ko ci doomu Mansour Faye euh, gannaaw bi ko takk der yi tege loxo ca yoonu Kébémer euh, moom yëf nag jur coow ñu joxoon ce baaraam ñaari policiers yaa ko jotoon a teg loxo xam le ne nañu ñu ngi fekk ak moom lu toll ci ñaar fukki million ak benn ci saag ga mu yoroon ci biir wotoom waaye nag laajuñu ko lenn yàlla baax ci mbaaxam daal di yëkkati lu toll ci 300000 may leen waaye du ger euh, di euh, leeral yi nga xamante ne direction générale bu police indi na ko waaye nag la war ci ñaari policiers yooyu lee ci ay daan teg nañ ko ci seen ndodd mu ngi ci yéen a bi di euh, bés bi le jour. l'évidence ay bésam la ñuy xool fa muy mujjeek yoon bokk na ci door a gay di homme d'affaires yéen a cabinet yi nag daanaka mu ngi gën a dis ci ndoddam ma ngay sulle ay mbóot ci ñawoon ca nguurug Macky Sall te seen boobee ñu ngi koy toppee lu ëpp benn milliard ak lu toftal ci cool suuf euh, ca Yoff. stade yéen kay. stade euh, Mouhamadou bi tey gaynde yi regroupement yi jëm ci match euh, Sénégal RDC Sadio Mané ak Koulibaly ñu ngi leen di séntu le 2. waaye nag Lamine kamara ñu ngi koy séntu le 2 juin gi ñu jëm laata ñuy waajal jongante koogule juróom-benn fan ci juin lay doon ci stade euh, bu maître Abdoulaye euh, Wade ba ne ca Diamniadio fan la sa convocation toll ci googule jongante bi tey. waaw léegi nag euh, dama mujj rek xaw a noppalu tuuti <coughs> ndax dama bañ a dugal bit boo xam ne équipe nationale def may mujj di sonal. Mhm. te duma attan loolu. Mhm. duma ko attan. Mhm. duma ko attan bàyyi rek ma ma ma des ca gradin ya waaw Euh, jàkkaarloog ñoom. mënoon nga ko lool. waaye euh, di leen di leen tàccu. mënoon nga ko nag. Mm, xam-xam baa ngi fi waaye lu kattan gee fi newatul. lu la ay guddi may ay guddi xañ la ko. moo tax ma ne la xam-xam gi rek a fi ne. Euh, football gi moom mën naa ko ci xel mi léegi waaye kattan gi moom mënatu ko. jërëjëf jërëjëf Abdoulaye Ba mbokk